damane ne dama la naw on a mis en mal on a mis en mal un directeur général bo xamantene ne il a su renégocier un contrat de mhm. jëlee ko à 1500 cinq ko mhm. à 1700 mhm. un jeune directeur général bo xamantene ne bi mu il a bien expliqué démb bu ngeen dégloo parce que man mën na né démb si le hasard du soog a wax dossier bi. Hmm. avec l'émission que j'ai suivie hier à Noumélan. Hmm. Euh, avec le, monsieur Ousmane Nouré bi nga hmm. travaille à l'ASER. moom il a apporté beaucoup de rectificatifs. Jean-Michel wax na ci Jean michel wax mais Dembe, li ma dégg si dossier bi. nekk na ne man parce que yàgg naa yow mi parti bi. le parti n'est pas l'État encore une fois. mënu ma ne yaa ngi ci parti bi war nga xam fu 10 milliards. bien ou 20 milliards jaaw. donc man li expliquer mooy avec le cas Hazard d'où du décision de justice la Cour suprême gagner pour mhm. sanctionner euh, Jean-Michel Jean-Michel dafa dugal bien référé en cas d'urgence pour dire que les travaux ne doivent pas être suspendus Cour suprême ne ko euh, mënuma travaux parce que le cas d'urgence bi la Cour suprême est un organe scientifique vraiment très neutre professionnel mhm. Mhm. te ñu ngi le top signal di xaar mais ce c'est le geste que le président Ousmane Sonko a fait il voit Jean-Michel devant la scène

Nous nous voir le bon exemple mhm. le nouveau type de Sénégalais comment il doit réagir et comment il doit accompagner cette mouvance pour atteindre l'autosuffisance mhm. alimentaire l'autosuffisance financière Sénégalais mhm. économie

c'est le patriote qui cherche un poste wala c'est le patriote qui cherche à se faire connaître Mon avant le projet de mon doon il yore sama njaboot di ko dundal ci farata yalla sunna su Mohammed. Mhm. ba légui j'ai mon salaire bo xamante amana sax no nañ ay poste de direction man maa leen ëppale donc ma ngi sante yalla bu baax mais bi baye sama liggéey jotee sacrifier sama famille watch sur le terrain pour la démocratie du Sénégal dama watch sur le terrain biñu paré biñu né ko am carte Pastef déposer au départemental ñu yobul au niveau de l'hémicycle dama leen man déposer mo parce que man am sama liguey mais ça yu waxé pour le projeté damay watch sur le terrain damay wax té Sénégal rek a ma ñor. Mhm. bokuna pour Sénégal baax su ma gisee lu ma neexul du ma bàyyi politique du ma bàyyi di seet ci gën pour Sénégal baax. parce que dama fi am njaboot bëggal leen dara non Azer dina leer. dina jox Jean Michel dëgg. incha allah merci beaucoup Mouhamed Aïdara. voilà déjà ba ba samedi incha